ah tey euh, dañoo am mbégte bu rey ci am mbébét bi yàlla may ñu aussi ñu ñu mun ko ñu mun ko réaliser muy journée de consultation gratuite bi parce que dafa yàgg nag bi suñu cité yi nii la zone ko gadda bi ñu koy solicité mais temps bi à chaque fois moo ñu doon contraindre ba du mënuñu ko woon mënuñu ko woon def moo tax suñu présence euh, temps yi nii ci géejawaay ñu ne kon autant que possible ñu profiter ci pour matérialiser ko mais dafa dépasser suñu njortu déjà ça se voit que euh, rek ñi dëkk ci gox bi soxla nañ ko trop yittewoo nañ ko non appel Bobu donc autorités yi fi nekk surtout les autorités locales ñom la ci interpeller pour ñu démultiplier action yu melni Paskan ak bala angane nan ma ah, nefa, te yon bini nek konser municipal dan yon yon, demande ke populasyon mi nan yon def konfians. Don konfians bo bon ak, waw natak, yon lepou lwisen me bedrek, mwi gout di mwi betek yon yon takaw se. Tayen ak jounen bi, masha Allah, ala dao mena, linye wakrek, premye edisyon bi la, men ram nane, dinan yon ko demultiplye, paskan yon yon ak deny ma gana son yon, gën maa gën a ma ñaax encore pour pour ñu gën a redoubler d'effort ci ci liggéey bi première édition bi mel nii kon xam naa ne expérience bi ñu ciy jëlee ci organisation bi dina tax beneen yoon aussi ñu gën ko renforcer gën aussi élargir ba pathologie yu bëri ñu mun ko ci inclure ñuy am mbégte bu rëy na parce que ñun amuñu lu dul Guédiawaye amuñu lu dul euh, la commune de Wakhinane Nimzatt donc ñun suñuy seen dañ leen di jaamu seen yaay faal lañu que lépp lu ñu bëgg rek ñun pare nañu taxaw si suba ba jant so même suñu amul moyens yi aussi dinañ dem euh, wuti ko parce que nag son excellence le président de la république képp ku koy jàppale yow ci loolu nga war a taxaw parce que moom loolu mooy yitteem te politique publique yëpp yu muy teg dafa ne il faut mu am njeexital ci ci askan wi boobu lay xam ne lépp lu muy def am na am na solo am na njëriñ pour pour askan wi waa man maa leen di sant yéen waa Géejawaay euh, info parce que nag ñun lépp lu takk ci Géejawaay rek daf ñuy yitteel moo tax suñu gisee ay initiative yu mel nii ay jeunes jël ko avec de maigres moyens ñun def lu du rafetlu ko di leen ñaanal aussi ca kaw ca kanam yàlla may leen bébét boo leen am ngeen mun koo yeggali parce que nag def journée yii nii aussi sans ñoom ñu ñëw couvrir ko peut-être doo ci mun a am sax yow ay ay souvenir mais dañ leen di ñaanal yàlla yàlla yàggal taxawaay bi ba Guédiawaye info law ba faw ñu dégg ko fépp ci ci àdduna bi jërë ngeen jëf